lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe mbokk yi ñu ngi ñuy jox ñaari thème di greffe d'organe ak mort cérébrale mu nekk ci rubrique bi ñuy naan chirurgie pratique chirurgicale et ses règles en islam dañuy fàttali ku naan santé dafay fekk ni santé boobu dañ ci yaram eh, yàlla suñu borom bu mu nàmmee bind nit walla mu namm nit ñëw àdduna dafa am fi mu ko jaarale mu ngi jóge ci ay waajuram ci ay chromosome 23 ci ku góor ki ak 23 ci waajuram bu jigéen bi te chromosome yooyu bët mun koo gis ay particule yu ndaw ndaw la microscope mooy tax ba nit gis ko di ko ëmb jaarale ko ci ndox ñaari ndox yooyu mélangé jox jëmm ji nga xam ne mooy nit bi nga xam ne ay organe ak ay appareil ak ay système ñoom ñoo ko composé feebar nag bu ñëwee mun na daal organe bi mun na dalit appareil bi mun na daal système bu tax médecine organisé wu ci ñaari kuréel yu mag ci wàllu paj bi lii nekk ay feebar ay pathologie yi ñu naan pathologie médicale la feebaru médical la maanaam nit ki bu ko amee euh, jéego buñ ci defee jéego yi ci war a def joxe ay doom wala ay piqûre feebar boobu mën a gudd am beneen côté bi li nga xam ne organe yooyu ak appareil yooyu bu ñu feebaree faw nit intervenir pour dindi feebar boobu ci yaram di volet chirurgical tey suñu waxtaan bi ci lay articuler feebar mën na ñëw feebaru chirurgical mu nekk lii cër bi nga xam ne mos nañ mun nañ ko dindi te dinu eh, buñ ko dindee nit ki continuer di dund du ko yàqal dara moom moo nga xam ne du bëri waaye feebar dina attaqué organe mu egg niveau bi nga xam ne organe boobu liggéey bu mu war a liggéey ci yaram bi te boobu liggéey bu mu war a liggéey ci yaram du ko mën a liggéey correctement faaw ñu dindi ko sinon nit ki mën na fa jaar euh, ñàkk bàkkanam loolu moo indi problème mu walla question yu don d'organe nga xam ne nit ñi yàgg nañ di ko seet di ko gis nit ñi di feebar masalan am feebaru rein cër yooyu ngeen dinay dégg comme rein foie ay milliards cellules ñoom ñoo ko composé amay ay lu ñuy naan ay unité fonctionnelle maanaam dafa am ci cellules yooyu dañuy regroupé pour joxe benn fonctionnalité ci ci organe boobu rein boobu bu ñàkkee bu demee ba défectué ba ëpp fonction euh, lu muy manqué ëpp li nga xam ne moom la rein boobu war a liggéey si la insuffisance rénale chronique terminale di installé wu nga xam ne ay euh, mesure am na fii ci hémodialyse dialyse péritonéale ba greffe de rein transplantation rénale naka noonu ci foie foie organe bu am solo la ci ci ci nit ki lu muy segg ak lu muy defar ci ay enzyme li war a jàppale euh, doxalin organisme lu bëri la ci joué moom tamit bu feebaree bu feebar bi ëpp cinquante pour cent ci masse bi parce que ci wàllu opéré bi tant que mun ngaa dindi lu motul 50 pour cent foie bi opération bi na mun a nekk fois bi régénéré maanaam mu saxaat indi partie manquante mais bu weesoo 50 pour cent bi dafay jafe. donc loolu indi ay problème mu transplantation hépatique euh, ñu ñëw nag léegi ci sujet bi en tant que tel di wax leen transplantation d'organe ab procédé faj la procédé thérapeutique bi bi complexe la dafa complexe metti ëmb lu bëri waaye li ko tax a jóg mooy suppléer maanaam ñëw remplacer organe bi nga xam ne moom bu fi nekkul rek dund lu mën a am loolu mooy objectif am donc dañuy wax nit ñi nekk loolu transplantation d'organe boobu opération chirurgicale la bu majeur bi nga xam ne dafay euh, consiste à remplacer organe bi nga xam ne moom moo feebar appelé greffon ou transplant waaye keneen moo lay jox organe boobu ndax dégg ngeen wax ji ba léegi ci wàllu chirurgie da ngay am li nga xam ne daf lay metti mu kii ni ñu war koo dindi da ngay dem rek ñu dindi mais bu ñu waxee transplantation d'organe rek faw keneen intervenir te loolu nag moom mooy publication bi moom mooy indi laaj yi moom mooy enrichir débat bi jàll ci historique di wax ne que nit ñi bi leen yàlla baaxee xel ñuy gëstu ci wàllu médecine bi yàgg nañ xalaat ci question bi nga xam ne mooy transplantation d'organe nit ñi yàgg na am na ñu nga xam ne ñu ngi naan depuis temps wu antiquité temps wu firawoon yi nit ñu ngi ko daan jël période gréco-romaine yi ñu ngi koy jéem waaye ci bind yi li nga xam ne moom moo njëkk a nekk transplantation d'organe bu réussir mu ngi am en 1959 mu nekkoon transplantation rénale depuis loolu mu am yeneen yi nga xam ne ñoo ci topp 1967 première transplantation du cœur réussie 1972 première transplantation du foie 1976 première transplantation du pancréas 1981 première transplantation du bloc cœur-poumon ba 1917 démb 2017 première transplantation du pénis di fàttali nag loolu euh, lu jafe la woon c'était excessivement parce que. léeg-léeg cër bu am cancer faw amputé ko donc mën ngeen comprendre transplantation pénis boobu lan la war a mën a indi ci biir société bi ci biir couple bi ak ñi nga xam ne avant ñu doon réussir loolu naka la ñu waroon a dund loolu mu nekkoon historique yi nga xam ne moom moo aju woon ci ci ci ci ci transplantation bi ñu ñëw Sénégal wax aspect éthique bi nga xam ne euh, loi yeeg juridiction yi ñoom ñoo ko xalaat maa ngi wax ne que ni première bi nga xam ne am na te ñu rejet ko mu ngi nekk yàgg nañ ko xalaat bi xalaat yi demee ba màcc gouvernement bi mu ngi génnee benn loi di la loi numéro 2015 22 du 28 décembre 2015 relative aux dons, prélèvements et à la transplantation d'organes et aux greffes de tissus humains. ñu door a benn loi bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy autoriser loolu li ñu seetlu loolu ba créer conditions yi nga xam ne ñun tamit war nañ ci mën a dugg pour mën a saafara. jàngoro nit ñi ci noonu la ñu li ñu naan le conseil national du don et de la transplantation ñu ngi koy créé ci conseil des ministres du 25 7 2018 moo ko adopté projet boobu fixant la composition l'organisation et le fonctionnement du conseil national du don et de la transplantation donc conseil boobu am na fii Sénégal ñun ñooy seet defar bi organiser lépp li nga xam ne ci don de don d'organe boobu la euh, ci don d'organe boobu la la la la nekk ñu ñëw léegi ci principe naka lay dem premier principe bi mooy respect du corps et de la volonté du maanaam kii joxe organe boobu faaw ñu respecté li nga xam ne moom mooy yaramam ak moom bu la volonté parce que dina ñëw ci kanam bu dee gis nañu ne lu bari tamit boobu tamit sujet yi nga xam ne nit ñi mun na joxe seen xalaat ci ñi nga xam ne ñoo faatu dañuy jëlee yenn organes yi mun koo jox keneen mun a continuer di dund donc premier principe boobu muy loolu respect du corps et de la volonté du donneur lu am solo deuxième principe général mooy le consentement nit ki mënuñu ko forcer mu joxe donc faaw moom mu d'accord bu mënul d'accord aussi dinañ ko gis plus boobu moom ñi nga xam dañ koy représenté légalement mun na jël décision te loolu tamit loi bi encadré na ko mais consentement moom faaw mu am troisième principe le don le prélèvement ou la transmission sur une personne ne peut être pratiqué dans sans son consentement préalable maanaam ci gàttal kenn mënul forcer kenn mu may jëm le donneur prélèvement, pré préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement doit exprimer son consentement devant le président du tribunal d'instance ou le magistrat désigné par lui maanaam mbir mi dafa am solo bi nga xam ne yemul ca ci famille bi ci médical yëpp mais justice bi ci boppam dañ koy ñëpp dafa bokk boo àndul ak justice bi yow am nga droit yow mi di joxe ne man xam naa masalan euh, maître Cissé magistrat la woo ma ko mu ñëw wax kooku teewal day day day day day obligatoire te participation bi ci loolu tamit day obligatoire le consentement est révocable sans aucune formalité et à tout moment mun naa d'accord tey suba maam ay information ma bañ a d'accord kenn du ci topp ci dara maa bëggoon bëggatuma et la vie continue dangaa bon yeeg dangaa def ci dara rek man maa bëggoon rek bëggatuma parce que kat jël organe bi opération bu mag la maye organe bi opération bu mag des spécialistes chirurgicales yi ñu ngi fii risque zéro amul fenn les dispositions légales pour la receveur la transplantation de tissu ou d'organes humains n'est pratiquée que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l'intégrité physique du receveur maanaam dañu fi wax yépp du luxe maanaam am na yeneen traitement yi nga war a def bu dee tànk mu ngi am ay traitement rek lii day nekk dernier recours il doit exprimer son consentement lorsqu'il n'en est pas en état de l'exprimer l'un des membres de sa famille peut donner le consentement par écrit dans l'ordre de priorité indiqué mun na nekk kenn ki nga xam ne maa ne mu ne ñu naam bëgg naa am organe mais mun naa nekk ci situation yi nga xam ne situation yu précaire la je ne jouis pas de mes facultés feebaru cër bi nga xam ne moom laa souffrir dem na ba dugal ma ci benn état bi nga xam ne mun maa jël décision su boobaa ñi war dogal ci man ñoom ñooy dogal pour ma d'accord les règles de sécurité sanitaire et de traçabilité boobu tamit beneen fànn bu am solo la sécurité sanitaire il s'agit de prémunir contre le risque de contamination du donneur d'une maladie transmissible avant le prélèvement dafay am ay analyses ay maladies infectieuses yaa ngi fii lu mel ni VIH sida hépatite B hépatite C bëri na donc loolu yëpp dañ koy càmbar ba ñu ne yaram bi baax na deret bi baax na ba lii mën koo joxe donc sécurité boobu lu am solo la te dafa dafa bokk ci critères yi traçabilité maanaam ci joxe ak ci di recevoir waaw ñu identifier leen xam nañ kañ nañ nan lañ bokk fan la ainsi de suite pour bañ ay masse di regroupé di def ay trafic d'organes donc le greffon li nga xam ne moom la ñu war a joxe doit toujours être accompagné d'un dossier contenant les informations relatives au donneur le groupe sanguin et les résultats des examens biologiques yi ñu waxoon léegi le compte rendu opératoire du prélèvement l'organisation matérielle et administrative prélèvement et transplantation d'organes humains effectués uniquement dans les hôpitaux agréés lu docteur Camara moom mooy toog ci hôpital euh, Alfala nekk man damay def transplantation rénale fii déedéet mënul bu ma ko defee rek maa ngi dugg ci clandestinité donc dafa am yi nga xam ne ay équipe ay ay hôpitaux agréé la ak ay équipe yi nga xam ne son sont très initiés conseil national bi moom mooy désigné yooyu fekkee expertise baa ngi fii les raisons du refus don de du don d'organe ñu bëri gis nañ ne que problème la dañ ko dañ koy xaw a di moytu refus boobu lan moo koy indi la méfiance envers le système et la peur de la manipulation du corps li koy indi maanaam système bu ñuy dund dañ ci am méfiance maîtriser wuñu ko bu ma doxee cër bi fan lay dem institution mu am lu bari li nga xam ne moom moo ci lal donc loolu mu nekk ndir refus nit ki bu lépp leeroon ci boppam am ay traçabilité fu nit ñi di jaar mun na nangu mais système bi lu mu organisé tax na ko moom loolu day naat lii bokkatu ci ak li nga xam ne dañuy manipuler euh, corps humain maanaam yaramu nit bi euh, imam yi di dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ci pour euh, li nga xam ne moom la lislaam wax ci loolu on dinañ a gaaw parce que ñu ngi ci premier thème bi te des na moo cérébrale bi apparemment temps bi mu ngi ko jeex les freins de don d'organes diffèrent d'un pays à un autre région yi maanaam Sénégal ci avancé technologie yeeg mais par rapport ak ci retard yi Europe gën ñoo développé Maghreb gën ñoo développé et ainsi de suite mu posé benn problème bi nga xam mi nga xam ne moom mooy formation ak plateau technique xam ne nit ñi dañ ci war a euh, xar seen tànk bu pour yenn structure yeeg wala yenn plateau technique ñu mun koo am mais dafa am euh, aussi ay questions religieuses ay questions diine yi nga xam ne mu ngi fi léeg-léeg mu facilité léeg-léeg mu gàllankoor méfiance envers le système maanaam système bi nga xam ne duñ ko maîtriser boobu tamit mun na euh, empêcher tuuti. wax nañ ko léegi manipulation bi nga xam ne moom la ñuy def ci yaramu nit bi les difficultés financière mun na tax man ma bëgg a jaay sama organe wala yu demee noonu y a des trafics comme ça yi nga xam ne ñun ñi xam nañ ko et des régions yi nga xam ne kenn mënu koo expliquer bëgguma bëgguma voilà donc euh, ci wàllu greffe d'organe boobu fu lañ bëgg a wax na que ni dafay laaj concertation bu gën a lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe